العافي صلوا على النبي احمد صل العافي صلوا على النبي احمد ننمكر امام فرمين قولوا صل العافي صلوا على النبي احمد صل العافي صلوا على النبي احمد ñu bokk ci ñuy dund moo la aju ci buuñaa wér ak xiiwaliw sànneeti sunu tuut ak may gu rëy gu tudd teew si yal na yàlla yàggal loolu ñu di ko defalati sang bu tedd bii bi ormati rasulillahi nu ngeen nuyu dawaa ir ngeen fi lim sunu bokk adriya ak muri yi seen tur bi moom dafa làmb turi tariqa yépp ndax képp ku gem bu jëm ci yàlla murid nga seen istimaal seen jëfandiku yéen ñoom ci kii nu bokk muy Moustapha sunu bay bu tedd ba khadim rasul def ci participation ci xalimbaam bu mat sëkk sunu bay sidi xaaj malik radiyallahu taala anhu def ci xalimbaam cotisation bu mat sëkk ci mustafa yàlla dogal ñu bok réew dundandoo ba fekkante ci kaw suuf bokit na ci askan ak ci men ñooñu seeni yëf du ñaar seeni yëf du yaar seeni duñu ñaar kon su ngeen nekkee fii benn te booba betey alquran di ko wax rasulillahi di ko wax ñu baax ñi di ci bind ba mu mel ni ci jamono bi ordre de sour la ci ñu sidi abdul ahad kon def nañu la rafet yal leen yàlla dool ne jaxase dool leen a boole lan tadxulul jannata xatta tuuminu walan tuuminu xatta taxaabu walan taxaabu xatta tahaadu àjjana mu am du ngeen ci tabbi mukk yàllay wax lu dul ngeen gëm gëm gi duma ko nangu mukk lu dul ngeen bëggante bëggante gi du sax mukk lu dul ngeen jariñante ci jariñante la bëggante yi am ci bëggante la liimaan di sax ci liimaan ngeen di sàbbi àjjana foo foogul woon ne di mu juum loola waaye boo amee dëgër gu toll ni fàttaliku yaay kan jamono wëndaalu rek ba ñu dee tuddi lii nga mën a réserver sa poste démb boobu di yëngu ci rasulullah yi ma ñëw fii war ñu méngale ma waxtaan bi ci nattu ci nattu la nde du yeyoo bu doon yeyoo du ma ñëw ñu ma raw rekk fi nekk nekk diggante fekk te ngeen ëpp ma yàlla gën maa ragal yàlla waaye ci nattu la ma yàlla nattoo démb alaaji Habib dafa wax ne ca Tivaouane fekk bërki bi dañuy teg benn bànn band boobu moo xaw nekk buriw ci Tiwaawan démb ci sëriñ beeg ci ñëpp mu wax ne dëgg-dëgg mu neex mu naqari langa buri rasulillahi daal ala si mu ngi ci loxol waa ji daaw kooku nattu la waaye yàlla na yàlla may xol bu ko muñ ndax ñu ngi werante ki ñu nattu mu muñ Kini may mu ku ci gëna a borom ki ñi nattu mu muñ ko ndax yàlla mooy joxe xiiwal ku ko neex di seet ndax dina ko santam déet moo koy xañit ku mu neex di seet ba xam dina muñam ñàkk muñ nag ak ñàkk dina jural ak ñàkkaat sant xiiwal dina jural xiiwalaat dafa am waaju baax ñu dem ba mage ñu mu maaseel jamono yàlla na bëgg seen ayib ñu doyloo ko am ci ku ko yéene doomam te mu mage lool mu xëy may ko kon doom sa di jànq bu lool góor gi mage lool xale lu góor nag boo gis li ko gën a naqari ci àddina mooy màgget mu takk jànq xol baa ngay dog bu yeboo bañ cee jot bu yeboo jot ci waaye rek impossible lay wax moom yàlla dogal góor ga ba jaaw amatuli bëñ ndeysaan ba ci tey xet ndaw si di jànq boo xam ne lex yaa ngi melax kaa taar bi jéggi dayo benn xalel góor romb ko mu toog ci wetu góor gi di ko ñawal lu mu xotteeku li xale ba laf la metti ko tarap mu xaar ba góor ga ne wëriñ mu ne ko yow daal yaa tardé yow yow ko la fekk sa taar bu rëy bile nga ñëw ci wée bile nga xam ne yëppam jeex na di fi perdal sa taar yow yaa yow yow yaa perte dëgg ndaw sa wax nga dëkk waaye bu fekkee góor gi man ko ëpp wax yàlla xéewale ma ko man ma ëpp góor gi yàlla nattoo ma ko ma di ku gi di ku ñu xiiwal bu góor gi sante xiiwal gi ma muñ nattu bi àjjana la ñu jëm te foofa amul màgget rubbana atraban li azabil yamin yana na bi daan reelu loolu daan def siyaa moo di kaf di ko def ci istixaara dafa am kenn way bu ko ñëw ne ko Muhammad ajjana rek laa bëgg ñaanal ma ma dem ajjana yonent bi ne ko ah soxna si tàbbe nga dem màgget du dem soo na si tiit nag di jooy di jooy béykat yi ko ah si soxna si da jooy yi mu jooy métti na loo wax mu oolu ko mu ree mu ñëw mu ne ko dama doon ñaan àjjana nga dama màgget du dem àjjana sama màgget mu ne ko waaw yàlla wax ne uruban ataraban de asabi waaw àjjana ñëpp marché tout ku ngay am ku ne trente ngay am ci at du ko yées du ko passé looloo tax ma ne màgget du dugg àjjana dañ lay soppi nga di gune tabbi àjjana yàlla leen yàlla fay liggéey bi rafet na waaye yàlla yëfam du ku mu neex nga bokk ay nit lañ fi ñoo xam ne wër na leen dinañu dee wóor na leen dinañu suul dañ leen suul ñibbi te ñetti baa rek la yàlla binda baa baa baa amul ñeenteel yi mu la jox daal ñetti baa la ci wax biir bi bàmmeel bi ak bafi lu demul ci biir bi demul ci bàmmeel bi fi koy bax biir bi gaaw gaaw gaaw mbaa bàmmeel bi gaaw gaaw mbaa nanguwul yóbbuwale nangu na envoyé nag waaye kenn du yóbbuwale dara loxo yi rek te kat koo xam ne ñi nga remplacé woon ñëpp dem nañu ñi la remplacé ñëpp nekk présent loo def lu takk sa bagage yaa ngi nax sa bopp koo xam ne ñi lay remplacé ñëpp ils sont présents tiim la ñi nga remplacé woon ñëpp rompre dem maanaam loo def lu takk sa bagage yaa ngi nax sa bopp te ku ci nekk sa papa nga doon remplacer ak papaam anañu dem nañu sa dooma la war a remplacer ak ana anañu ñu ngi taxaw si kimul koo xam ne ñu nga doon remplacer nag rompor nañu dem ñu lay remplacer ils sont présents lew toi ah, ah nooy dem xanaa doo fi toog rek yaa ngaaral nag jëmi ko ëllëg c'est pas c'est pas c'est pas ku ne am na jant boo xam ne seen kër yaa ci gën di gune magu la fa kenn muy keroog ba nga juddoo gune gune am na jamono seen kër yaa ci gën di goor muy suur ba nga dee vingt d'arrivée jóge ci Mawlana tabaraka wa taala indi yaramu neen indi loxoy neen sa xarab sa xarib ak deret bari kalaar di soow ku ne sooy doxal nag suur yi dem weer yi dem at yi dem ba mujj gi kër gi nga bokk ci ñi ci mag war ngaa xam ne ku sori fa nga xëyee jegeñ fa ngay fanaan ku sori fa ngay xëyee jegeñ fa ngay fanaan foo xëyee Fatick sa digganteeg Fatick léegi ñaata kilomètre la nga ne vingt yaa ngi jëm trente kilomètres war ngaa xam ne dix nga desi amul ñu bari ci ñun ñu fi daw fekkoon daaw jéeg nag daawaati jéeg nag dégg naa sax ngeen wax juróom-ñaari at juróom-ñaari at at juróom-ñaari at dund bu mu jógee lu bari jóg na ci yàlla bu fekkee na nga daaw la woon ay fukk yatquluuna aalatal kalaami dégg naa président mu ne ma membre yu jigéen ñi cinquante huit lañu cinquante huit ci arab am na li muy firi li muy firi am na solo xanna la xanna mooy firi sopp xanna daayira baa ngi toll mu ngi tollu juste ci chiffre xanna nu nar cinquante la appelons que huit la huit plus cinquante du cinquante huit di yaa ma wax ne mat nañu cinquante huit sànq ma calcule ko muy firi cofeel piir ci rasul يبقى دائرة المتهاب مرم بنا وجب علي وجب علي للمتهابين في الله والمتجالسين في الله والمتباشلين في الله الجنة gaawan دينا من يالله dinaa teg àjjana ci loxo yi ñii ñi daje ngir man joxante ngir man toogante ngir man wajaba dafa tëb rek ne wajaba alayya war na daal yàlla dara waru dara war mooy loo xam ne boo ko defulee ñu duma la moom lu ne ci coobareem da ko defee yërmandim kataba aleykum rahma man la neex ma kuppeel sama bopp yërmande jëme ko ci yéen de du lu ma war مولد ابنين وجب علي للمتهابين فيا والمتجالسين فيا والمتباشرين فيا والمتسايرين فيا الجنة فمن لي لولو دوكن جنتي فين توب دو سالي كارت دو لطو دو ميتي دو فيلم السينما لانه نيو ارتقاطا برسول الله باوصافه واوصافه تنانيو اسراف الاوصاف اوصاف الاشراف اشراف الاوصاف اوصاف الاشراف هو الذي لطف باوليائه فعرفوه ولو لطف باهدائه ما جائدوه xam nga li yàlla won nabi ba mu mel ni mu mel bokkul ak li mu won iblis ba mu mel ni mu mel ma ne yàlla won Moustapha mel ni ñoom ak yéen la mu won moo am ñawante feeñu ko wali yi ñu xam ko nangu la mu leen feeñal ba mu nangu ba ñu nangu bu ko feeñe woon noon yi duñ ko wét yëfi yàlla du ko mu neex bokk déedéet du ko mu neex bokk de président invité tey rek sax ku xiif añ boo fa demee tàmmu a kar sax yàlla ku mu seexlu si yëf sa dara du dugg ci dara dara dara mënulaa muus ba sa dara dugg ci dara wax na ko sax ñaari aayaa ngi benn bi suratul hijri la benn bi suratul nuur ñaari aay yu mat a bàyyi xel la soixante quatorze ak treize yàlla nee na wa tallahi la tasalannahum ara kaanu yaamaluun maa ngi giñ ci sama man man yàlla ne billaahi kenn kenn kenn ba ngeen daj ku ci ne dinaa la laaj wërsëg bi ma la joxoon foo ko dugal ni dund amee wëloor foo ko sàkk boo ñu xëcc sa bàmmeel duñ la may nga dox benn paax te expliqué woon ñett foo jële woon sa wërsëg bi ko dugal foo sànk sa dund bi dinaa leen laaj kenn par kenn def ko gis nag dinaa leen laaj kenn par kenn ba ngeen daj ku ne yàlla dina wéet ak yow ba nga defe ne yow rek la bindoon dinaa leen laaj kenn par kenn ba ngeen daj giñ naa ko ci sa borom bu tedd bi ne amul góor amul jigéen amul sëriñ amul taalibe amul jabar amul jëkkër amul ku am amul ku ñàkk amul aalim ak jaayil amul tubaab ak olof kenn ku ne dinaa la taxawal ba nga xam ne maa la bindoon laaj la foo jaaroon ak noo fa jaare woon ak lu doxoon nga jaar <laughs> ah bu leen defe na bu leen defee na bu leen defee nag daje yi daje bu tasee ba ñu tasaaroo rek fa lay yem déedéet dina ñu dajalewaat yàlla nee nu dajalewaat laaj lu taxoon ñu daje ku taxoon ñu daje. kon daje bu mel nii man daa bari ku taxoon ngeen daje rasulullah kii neex na lay kii layam borom du am gàcce te kat alaaxira foog ñett yi am mbaa lii ma lay wax am foog nga doon ku yàlla ku yàlla rus nag day judd rek yàlla rus ko du jot sax a def dara ngay judd rek mu rus la wala boog nga def lu tax mu rus la rus la woon waaye liggéey nga ba mu rus la foo nga doon ku yàlla rus nga mbaa nga doon jëf ba mu rus la mbaa nga ànd ak ku mu rus mbaa mu rus loolu gàcce amul ci àddina déedéet àllaaxira allah am yàlla incha allah bés bañ ci di nga gis bay lekk yàppam wax ci suratu nuur fa muy jeex alaa inna lillahi ma fi samawati wal ard qad ma antum alayhi wa yawma turja'una ilay wala wa yawma yurja'una maa ngi leen di yëgal ne nekk wu leen lu ma ëmb du guddi nag du bëccëg gis nga ñun ñi ñëpp ku ci yàlla soxla woon du dem sa kër ñu naan ko mu nga gàmmu ko yëg na ne yaa ngi fi sa sey du laaj mooy ci kan day ñëw ci yow daaj bu la soxlaa it du laaj kut da koy piiw maa ne ñun ñii ñëpp yàlla soxla woon du dem sa kër ñu naan ko mu nga dem ca gàmmu ga ah ah, ah yëg na na yaa ngi fi su fi juuxee du laaj yaay kan day waaxul direct ci yow su amee ci yow soxla it wax kenn jàppale ma moo koy piiru bàyyi suñu xel ci suñu bopp kenn ku nekk yàlla dina xëy dikkale la su doon borom jikko da lay xëy dikkale fuuk la taxawu la ne la mbaa yëg nga ne guux boo war a naan defatul ci Fatick tout waxuma guux boo war a naan waaye tib bu war a duggati sa mbaq defatul ci àddina yaabante nga ba tey mayetuma la benn paa nga tegg ko xafa gën a yomb a xippi waaye bu mu daanooti bu mu jugati ngay xool direct weñ yi wersa dina dal buñ ko dàqul du naaw ko lay sa balaxati taraaqiya wa qiila man raaq wa zanna anhu alfiraaq والتفت الراق براق إلا ربك يوم يشيل المراق daal di ne la daal di ne la daal di ne la yaa fa nekk sa badoor bële mbaa yëg nga ne dootoo ko sol mukk grand boobu bi sa bos la mbaa yëg nga ne dootul dugg sa baat xaamalu ne ci ko parfor bii wala bayi bii wala armoire bii waaye ne la wóor na bu ci caabi duggatee beneen loxo la da nga doon tiitaru na yaa moom kër gi tey ma génnee la ko du génnee par weer nag wala par at génnee faw laa la koy génne tey tey da nga noonu ci dëkk bi nga juddoo tey ma génne la dëkk bi xam nga fu ma jëm ak yow fa ñuy sànni mbind yi fa ñuy sànni mbind yi laa lay jëmee dinaa fexe ñi lay gunge ñëpp ma pikir leen ba ñu nekk la salloog suuf ñibbi si bàyyi la fa ba fekk la addina bi doy na waar nit ñi diig nañu martaba aleel wërsëg bakkan te ba neex daraja nafulaay marchandise la moo xam ne ci biti gi Iblis lay jaay jamono boo ci waxaale nag da lay laaj garantie titre foncier titre foncier bi mooy sa ruu soo ko ko garantie nag jotu la koo jot kullu nafsin bimaa kasabat rahiina illaa ashaabil yamiini fii jannatin yatasaaءaluuna anil mujrimiin booy dee rek di dem jaanam nu góorgóorlu yi fi yàggul neexuleen dégg mais yàggul yàggul fi ni yeewoo day fekk yeewu passé mooy buñ la tegee ci kaw si bàmmeel te Iblis a ngi profité lu mu mën fu ñu oote àddina ñëpp dem dañ leen xiis sax ba laaj leen paas dañ leen xiise ba laaj leen paas ci football ba laaj leen ko ci cinéma mais Iblis dina leen dina leen dina leen dina leen karwaase làbbali leen bali koppar di neex-neex mu jaral leen mu jaral leen ànd ak buuxante door a am biee ak neexal gu ne mu demal la ci tiris ndem film bi intéressé na loo fay jële nii ma def ba ñu jékki na tas na boo amulee saas nag da nga fa enwaale loo xam ne boo dugg ak moom bàmmeel réccu la doon juddoo waaye kaay di fay pour ñu duma la doy na nag gor yi sax nangu ñu ko leen fay pour duma leen kaay ma fay la duma la gor boo ko wax ngeen xeex rawate nag am na fay la pour ñu duma ma am na fay la pour ñu duma ma nag ma wërsëg ba mu lew la nga dugal ko ci barab boo xam ne balaa ngaa dugg a fay te la fa xew yëpp dara neexu fa yàlla loolu mooy fay pour ñu duma la yàlla yàlla barin guddi yu mel nii ak jotaay yu mel ni nit ñu am wëloor lay xool fi ma ne ñu am wëloor côté bi nit ñu am wëloor ci yàlla fa ne ab jullit rëy jullit ëpp président de la république moo ëpp foofu premier ministre moo ëpp Lat Joor moo ëpp ab jullit bi gën a tuuti koo xam ne si piri xëjul ci suuf yi juróom-ñaar si piri xëjul ci asamaan juróom-ñaar nga jàpp sa bopp di ko tayle ngir bëgg a médaille ba place nangul sa moroom lo bañal sa borom pertaraw inna la sara min al muminina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفقاع ومن أوفى بعده فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به تائبون عابدون تائهون راكهون ساجدون لامرون بالمعروف والنهون عن المنكر yàlla mi xam kuy jullit xam piir luy jullit ne na pireem àjjana rek la piir jullit àjjana la juróom benn juróom-ñaari yëf yi mu teg la foofu ñeent yi da ko jëlal boppam ñaar ñi nit ñi moom ko benn bi mu bokkaat kook ñoom aaya bi lim na fi juróom benn article juróom-ñaar ñeent ñi yàlla ko moom moom rek ñaar ñi nit ñi ko bokk benn bi mu bokkaat kook nit ñi saa yu boona pour yàlla la haabidoona pour yàlla la saayi'oona pour yàlla la raaki'oona pour yàlla la ñeente yooyu la moom laamiroona bil ma'ruuf suñu diggante la wa naahoona anil munkari suñu diggante la wa yaafisoona uduudallaahi ñoog moom a ko bokk bu baax bu yàlla xiir ci boppam tànn ci moom nuurul hidaaya mu génn seen réew génn seen dëkk dem ci benn dul ne du ma takk jabar du ma takk néeg du ma am nekk ndoog dendandoo fii laay nekk di wéetal sama borom am na fa juróom-ñaar fukki at di julli guddi yi di oor bëccëg yi bu yor yooree bu soxlaa njàpp barasi ko ci xeer bi fekk ci takk dex ji teen bu bënn bu neex mu naan jàpp delluwaat ci julli ga bu naanee ba jàpp bay dem ñu indee ko ñaari grenade ak ñaari papayo mu reere bii añe bii bu ci suba saa mu ñëwaat nekk ci ban juróom-ñaar yàlla may ko it ba muy dee mu ngi si jóot ci biir julli suñu borom moom fa ruuxam yàlla na jaam it malaaka yi yóbbu leen ko àjjana mu ne loolu mën a am yàlla ka ah loo def mu ne ko juróom-ñaar fukki at waxuma ak nit dëkkuma ak nit ba bëccëg nelawuma guddi saguma njab di la ko jaamu moom kañ ajal fen yàlla na kon taxaw leen kaay nu rek ci waxuma ndox ma nga daan naan ci nga fa ballal waxuma grenade ba bana papaye bi ki la ko daan jox mais nañ commencé rek ci bëtam càmmoñ ñu rek la ko àq bëti càmmoñ nebboon bu ñu bu weex balee ci biir ma dafa ko communication si di gu naaw ci yóor couleur ko couleur bu ñuul na ko ci bat boo seenee loo ragal daw boo seenee loo xamem yuuxu ko ko kooku nañ calcul nu mu war a day boo ko ka lay noggati mooy gën a garaaw parce que mu lay noggati garaaw a ñuy xeex ba daal dañ ko désigné comme caporal de ronde mu ronde moom waa yooyu ñuy pesoon bi mu daata ñëw xale bi xeex mu ñëw nag di mitigu rek na nabi man fekk ma xam bi nabi ne ko may naa la nga dugg ci Belgique yi koo fekk mu defee bakkan nga jekkali ko muy wër nag ba fekk abo jéeli moom mu ko pesoon ñu ngi dog lupp bi tu vois wa yowmul maslumi izzatu wa yowmul maslumi ala zalimi izzatu mi ngi yowmi salimi ala maslumi ñaari xale dog tànk bi ku ñuy wax maa ak moasi ñoo rey abba jaxal parce que midi lañ dëkk xamuñu ko mais dégg nañ ko bañ nabi la bi ñuy installé xarit bii la ababacar wax ne maas moo ñëw ne ma papa yow mi dëkk màkk gawar gale ku ci abbo jëli ma gis na ko ne ko doom loo koy doy mu ne ko bu ma ko gisee ni ma dégg ne ni la bañee Moustapha sama jaasi ji tey mu toy xepp ci yóoram nga Ababacar ree na ko doom tuuti nga ci kooku Abba Jahal ngand la woon mu ngi day soixante-dix ans tuuti petit frère xale bi mois bi ñëw wax loolu Ababacar Ababacar ne ah xale yi léegi seen dogu geeg waa ji tuuti ne ma seen abba jéelin keroog bi ñuy xeex ba dal ndimbal la war mooy fas fu weex ndimbal mu rafet lay mu ngi ko yëkkati muy jóg mu di ko bàyyi muy dal mu naan yéefar yi ñu nga nale ay jigéen lañu soxlawul sax jaay nañ leen waa ko jàpp yeew Ababacar gestu ne gos bi kaay góor ga ma doon laaj seen nga borom ndimba mooy yàq ma lay di jógal mu ne waaw mu ko mooy abba jéelin ba waaye Ababacar ne ne sama bët teggeekuwul ci bos bi ni muy dugg ci nit ñi di génn di dugg ba ci Abba Jahl naka la nag ngaas jaas ci taw Abba Jahl boobu tuubagul ëkkëramatu doxe ginnaaw xale bi teel jaas ci moroot mu dagg mbaggam xale ku ndaw dese ko si bit ku ndaw xale bi tërëf for jaas ji songa Abba Jahl attaquement euh, mbagg mi empêché ko mu wëlbati ko jekkalil ko boppam roof ko ci seen ciiram mbagg mi mel ni robinet mu tàkkee ko loxo càmmoñ ne lupp bi tapit yóor gi rus yóor gi yóor gis na baq daal mu ne ba fet na baq ko waa jooju mu gisoon fekk daal di koy wéq ci bopp mu teen ko mu ne ko yaa xada wallaay oo nañ la ci lislaam ci nga bañ ñu oo la ci lu nga bañ ñu xoolee ci teranga nga bañ ba tey jii nga dajeeg yàlla mu lakk la mu xool ko ne ko ndóolal xaraam li parce ko ci këll ma ci te boo demee nel Mouhamed maa ko bañ ba fii ma tudd laa ko gën a bañ wa man lam yajal laahu lahu nuuran fa maa lahu min nuur te mu ne defal nañ ko Moustapha bis nañ tudd si yonent yàlla Issa mu ne yonent dina judd ci dëkk bii Mouhamed lay tudd ak Alxuraan wax na ko سورة الساسين يسابيلا يسابيو يسابيو ولا شبع سبعين يبتلا يسابيو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الشر فكانوا بنيان مرسوس إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تدنوني وقد تعلموني إني رسول إليكم فلما أساق وأساق على قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاء بالبينات قالوا هذا هو نفس من افترى على لا ويدعي الإسلام ولا لا يهدي القوم الظالمين ولا دافع ولا مسلم نور ولا وكان الكافر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لاسراء الدين كله ويكرم شركا يا بني سلام على عدلكم على تجاه سيارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يحفظ لكم ذنوبكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبات في جنات عدن ذلك وفي العشر وأخرى طيبونها نصر من الله وفتح خريب ويسر مؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للعواريين من أنصار إلى الله قال أواريون أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبروا سائلين سورة الجمعة Thank you. waaw waaw mooy géej foofu la saar bi yemoon xam bi ah. dossier dina judd ci dëkk bi moo ngën ci yeneen tey tànk génnul nag dëkk bi du am majorité bu mu leen dominé mais bu ngeen rëccee bu ngeen sàgganee bu muy rek yàlla raw di ko sirwaye nag ba pare ba yëg ne saa bi yëpp daw nañu ba jeex Omar rek ci jóg mu xawal ba mag ñii ma la waxoon daje mu takk rëppatal ñoo ba ci kaaba gi mu yóotu biir dongam laxas ko ci benn teg gi parce que di yey laab ji mu cëppeelu kàbbar ajër la suul romb mooy tasam roofa xattiin traversé misa bu raxmati tuur na ci kaw rukkanu yaman dellu si am benn point képp mooy leen yéen laa wax ma magi makki ñii ay machine ngay bax ca jaanama seen bopp yi lay jëkka yéen ñi antenne génne ki yàlla gën a bëgg ci suuf si gën a teg Omar a ngi nag bu kenn wax ne daw naa bëccëg laa jóg mi dina laa jëmit ku bëgg sa jabar di caga mbaa sa doom di jirim dab ma waaw waaw sa tërandoo waaw waaw Omar wax na dëgg Omar wax na dëgg Omar Omar la Omar la yoo Omar yëpp neexuñu di gisal Omar Omar Fouti bu mujj bii rek li mu def ay ndébante la soixante dix mim ka deux cent la dund soixante dix ans muy ay ndébante def naa quarante attaque muy mim ki bind naa deux cent bouquin muy raay asaabu rasool ñeent la ñu woon ci ñi gën a siiw boo ne saabe rasool rek ñu dafa ñeent la xam nga ñaata la fi ne bi bàyyi ci taalibe cent vingt quatre mille ci diir vingt trois ans ci la dominé 124 xam ne ay chef d'état ngi ci ay propriétaires ay capitalistes ku ci ne mu wan lu tax nga nga bàyyi la nga yoroon dëgg xëjul ci kaw dara wax naa la buur bi woon ci askandri yi te jubadi bari doole yéefar yé ilif ay julit di leen noggatu rek ba jàpp fa be taalibe benn sëriñ sëriñ bu mel ni Baye Xaadimu Rasuul wala Sidi Haj Malik ne da koy noggatu ñu ne ko ëpp naa def kooku nitu yàlla la mu ne yi eh yéen da ngeen di fontu sëriñ ba dem di ko tinwaan ne ma boole la ne ko kii nitu yàlla la na ma wan lu tax ma gëm ko sëriñ bi ne ko léegi génn kili ma nga lelal neefara ñu ngi ko laal bu rafet sëriñ ba waaxu tibb ca neefara ja ba loxoom fees mu ñëw wiccax ko ci kaw si jaada bi buur bi toog ba muy tàggoog loxoom rek la soppeeku tóo nekk jama naan melax melax melax waloor wi ëpp ab dikk ci réew mi buur bi na ah gaa yi ne ko bul gaawtu de kibar yu rëy lañu lu ne la ñu mën ko leneen mu ne ko léegi ne kas kaas bi woon ci kanami buur bi bu witt ne ko teel kas bi dem ba gite na xoob ci jaww ji fes dell ak melaw juutu taat bi jëm kaw te dara toq mu ne ah gars yi attention ki mu àndal ëpp doole ki ma àndal gars ko ah, waaye dañuy tondale rek na def troisième fois mu ne léegi ñu indi quarante ak taar ma tam maa ngi muy wow koŋ ko ba mu jekk utal ko bën bën pour que essence jafal ko ba mu takk ndox mu xas taalibe yi ñu seq bi mu ne na ñuy wax allah ñuy wax salaatu ala nabi ñu jaxase ko ba mu jaxasoo ba mu mel ne allah aju ba mu ne bëri si biir taal ba dagat ba muy dem mu këf loxol doomi buur bi fekk doomi buur buur baa ngi toog uuf doom bi mu ànd ak doom jëm ci biir safara si meñ meñ buur bi mu dee si yu xël tëll lu toll ni bi ma jógagul ak léegi mu jékki-jékki ne tell a gos gos baa ngi yor papa yi bu ñor xom ci loxo ndey joor yor weenu banaana wu ñor xom ci loxo càmmoñ papa bi jóg si fóon ko ko fu ngeen demoon mu ne ko góor gi yóbbu noo ci benn sardin boo xam ne loo ci dëgg te mosuma gis sardin bu demee waxuma sax lëjum ba waaye jongama jafa nekk ak piyaan yi fi cib ak rigolu loxam e, meew maag e, lem nga mu ne ashhadu an laa la illallaah wahdahu laa shariika lahu xam nga kooku moo gën a oyof xol abajeri nabi woon na ko waaye mu ne ko jibar nga kii nga xam ne بشيء قليل كرامة من كرامات الأولياء موقف أمته كي جس شيء عجيب من معجزات رسول الله فأرى مبين رسول الله دال بو گنے دک دال مصیبت alaaji Malick ne keroog lañu def seen dernière réunion mu dajeeg samedi soir ni tey ñu ngi formé réunion ba kër góor gi xusey xusey jëkk a tabax ci kër gaa ngi tuddoon daaru nat wata mooy mooy chambre de député fa la daje di fa fas di feñet ñuy daje alaaji Malick keroog la ñuy réunion guddi dimanche cent personnes la ñu président ba présider ba xam naa ko xam secrétaire ba xam na waraaseer a ku waa la ñu ku la mu wax xam naa ko. ñu ngi formé bi sept ci ngoon ñu ngi tas cinq heures moins quart ci njël ba ñuy jóg di jóg dossier bokk sa dossier El Hadj ne lii la ñu jógaale. waaye ñu naan ko ba ñuy jóg d' accord nañu ñoom ñëpp ci rey Moustapha. d' accord dami d' dami réunion bu seeral. boobu réunion rek la Iblis ma sa fekk si na ko ba mu soppeeku nit ñëw ne dama dégg pexe mu rëy mu ñuy def fii palanton bi ne ko amul droit dugg parce que limité nañ ko cent personnes la ñu te su tur nekku ci na tampi dama amoon pexe mu rafet rek bëgg leen ko dimbale naa ngaa dem mu ngi sol jàlla bi bu xotteeku mu ne ko taxawal papa ma ma déclaré foo dëkk mu ne ko naj di waa naj di nag nit ñu rafet xel lañu mu ne laa am na bu mag ah bu jógee naj bi mais dafa dégg mbir mi ñëw ñu ko bàyyi ko mu dugg nag di foog ñu am xel mu dugg tàbbi ba nuy jóg nag ci njël la alaaji maa départ ne waaj ma ah, na alkoolu l'unanimité amul kenn ko contre li ispayi ci rey rasulullah ndekete yoo ma ali moo réer nañu ne bi am na sadika ki ñuy jéem a rek loolu lay mooy leeri yàlla ga mu waxoon ca lan faal ne ca bala ne wa yab allahu illa an yutima nuura loolu lay mooy leeri yàlla ga waxoon ca safi ila walaw kana al mushrikun iblis na leen naa fi des garde ko musuma nelaw musula nelaw nag waaye nag keroog nelaw keroog jàpp dañ ko dóor koy laar ba mu nelaw jant bu ñuy wax yaasin dañ ko indil mu xërën Moustapha génne fi Alaaji Malik ne ba ñuy fexe fexe moom a xamuñu ne loolu leer ak yàlla la mënuñu koo arrêté leer ak yàlla la dina jàll yàlla ne na wa yafa llahu illa an yutima nuura lankanaa dafa yem dina jàll dina jàll dina jàll jasira dina jàll afrique dina jàll maghrib ma ne leer gi du yem fii dina dem 1981 leer gi dañ ko tantal ca Fatick ويبقى الله إلى أن يتم ناره il forme réunion bi sant président secrétaire rajo bi jóg alaaji maa ngi ne ku ne xam naa si tur xam loo wax ñu ne guddi Saka دعبهم ودعب كل عدو ويووي ووي نكت ويمكر الله مومدا ويمكر الله إدماما لتليم هكذا إسام ابن عمر تكلتنا سيبت من الرابعة ak booy jëlin ñett ñee wax keroog ñoom ñett it la yàlla du tontu ca lan faar saaka dahabuhum wa dahabu kullu aduwin <laughs> وايووي نكتيو يمكر الله مومتا ويمكر الله اتماما لتليم هكذا اذا ابن عمر تكل كرم ثبت من الرابع ابو جهل نيت ني واخ كرو نيوم نيت يتلي يالا تون تو ñu ubbi débat yi moomata na fi tax a wax ju gudd gàtt bu riccee rek musiba dal xam ngeen ko comme nag cercale nañu kër gi ni ñuy def ba du raw la ñuy wax mooy wax bi tey say ba tey yëkkati loxoom ñu may ko parole Iblis a ngi toog waa ji daal sama pexe man mooy fuaraaw yi nga xam ne ñoo fi nekkoon def ndaanaane waykat buur bu ñu nuy ji bu leen mayul ñu xas ko ci way te buur yi ëppal seen bopp di rey baadoola wax na def buur dañuy tabax néeg dugal la ci wutal la bunt buñ la mën a sànnee sa genn wàlli ration ak sa genn wàlli naan ba nga dee waaye dañuy rus exécuté ci ordre noonu lañ leen daan rey kon nañ def noonu Mohammed Iblis yuuxu na moomu pexe jubul de te bu ngeen tàggatee rek waa ji dina raw ak niñ ko jekku guddi tey te tey kat mooy suñu dernier cartouche bu rawee rek musiba dal waaye toogal sa pexe jubul waay mu toog Abba Jaalin ñaan ah waa ji ñaan Isaam ibnu Umar sama xam-xam daal mooy nañ ko gëléem gu ndaw gu sàggatoogul ñu wut buumi fil de fer yeew ndigal na beeg ndigal gëléem la yeew dënn ma dënn bu ga langal ñaari tànkam yeew ko ci tànki gëléem gi takk ba ci yóbbu ko ba ci àll ba ñu yuuxu ko bàyyi ko sànq ko ci garab yi ba mu dee iblis yuuxu ne ko moom fexe jubul de ne kanam gi rafet ak ne làmmiñ bi neexee buy génn wax lu tax ñu yeebi ko te waa ji dina raw rek te mën a xaj raw pexe mu ñuy def rek xeeb na ko la ruuxul bayaan doon lépp bi dafa am waay bu bëggoon ku jigéen pour takk ko am ku koy jamaaleel waa ji ëpp ko koppar fuuf gën koo rafet fuuf gën koo tabe fuuf waaye terewul mu di si bëgg-bëgg rek waa ji rafet jooju nag doon jamaaleem am bés muy rëbbi di gaynde yi ñay ñuux aw ñay juux ci moom laxas ko ñox bi wëndal ko dóor ko ci genn garab bopp bi mu bóof ci koom di nër nëri fekk mu ngi àndoon ak benn rëbb rëbb ba nag taw ba raw ñëw kër ga na jamaale ba sa waaja daal ñay waa ngi ko jàpp toj bopp ba tëdd ci koom di ko maat maatee mu ñàkk lu muy wax ne ma ne ko man li ma naqari waaji dina rëcc rek ndax ñaay dafa nasax moo dal iblis lu ñuy wax rek mu ne loolu baaxul abba jari na mujjee wax na leen dënk makk juróom benn pénc la pénc mu ne nañ ci jël ñaari xale lu góor yi fa mën jox leen jaas yi ñu daasandoo ko ñu yeew ko tiim ko ñu wax benn ñaar ñett jaas yi dalandoo mu dafa doge li ma ci jublu ay bokkam du mën a xeex ak dëkk bi tout tout su ko kenn reyee bokk yi dañ koy xeex ak moom waaye bokk bu dëkk bi yëpp reyee ay bokkam du mën a xeex ak dëkk bi yëpp te bu ñu ñeeñee ba laaj dommage intérêt ku ne tuuti lay cotiser mu complété kenn du sax للمجتمع غير قوت الله منزلة ثم من رام الورى لفضل مدرينا والفضل عند رسول الله يقرر للمسرين الله والفضل عند رسول الله يقرر من رام الورى لفضل المسرين الله والفضل عند رسول الله يقرر من رام الورى لفضل المسرين الله والفضل عند رسول الله يقرر عادل المذنبين له والفضل إن رسول الله خراه منكاب وهزان والبوزير قد براه وكلهم سيره نور وأسرار رام الورى نيل فرد المسلمين له والفضل إن رسول الله خراه dafa dajeeg fii nu toll teraangay àddina ak àllaaxira ku ko bëgg ci rasool رامو ووائد الفعل مع الجماعة كقولهم صار رجال فعل فايل جنينكم مفرطل فايل فايل يجد جمع مملا بايسين تبالك راما فكنا كيف كان نغي وحبو alwara mbindeef yëpp bay Sëñ Tuubaa ne gis naa kuy mbindeef sa càkkutéef guddeeg bëccëg tere laa nelaw mooy nay la fàddalin am ngëneel ku ne bëgg gën a la sëwee nelaw waaye nee na fi ñu aw ngëneel newu fa maa leen xaaj ne leen héey fi ngeen dëkk man du fa la ngëneel nekk ñu ne ko moo mbàkke fu mu ne mu ne alfadlu inda rasulillahi <laughs> kooku nag bu ñu yoree liggéey bu sell nii liggéey ko teew ci aw nitam yu di xeetam teew ci ay taalibeem yu di ñoñam ñu war ko fa mën a gaaral ñun ci réunion ba gaaran ci réunion ba d'accord nañu ci yeew Moustapha assemblée ci cawandoo ko jaat alaaji Malick tontu ne wa yënkoona ñu ngay fexe ca daaru nag wata ca Makka ndekete yoo sun borom def na réunion ci asamaani juróom-ñaar oo Jibril rek Mikaayil ñoom it ñuy fexe ñii lu ñuy fexe lu rey na bi leen lu ñuy fexe lu ko musal wa yënkoona ixtiraara saaka daaba alquran ne na bii fàttaliku looy tiit maa la défendre guddi keroog fàttaliku isiyam kurub baa dana fexeel bi ka ci yow lazina kafaroo yéefar yi ba d'accord ci ñetti wax la yasbituuka aw yaqtuluuka aw yaxrujuuka mu ñetti parole dee la génnee dëkk bi ànd ak gileem dàq ko maa ñu yeewu la boole gileem ga maa ñu rey la ويمكرون ني فخي مكل لري ويمكر تي دوغال لا ويالا اتما من لفتل دله من سن ترخت بن كورينا دار سو دي ني مصطفى من برد واتم باجي مي بتي وين يي مسام بلوخي نكو بوبي فنا ني ديان جنا جبريل جيجي بور بو تولي يالا nelaw yu jëkk jib ku la delloo su buntu ñu ne la ba fa fanaanee de te waxuñu la pexe mooy def dara ëpp ko fit na ko buur saar wuñu wax yaasi na ko jàng ko gardien bii na xoll di wax iblis mu nelaw nga jàll mu ne yaasin wal quran al hakim innaka la min al mursalin ala siratin mustaqimin su la neexee nga jàng tansiila bu la neexee nga jàgg tansiilu asisi raain di tundira xawman maa um sira baahum foom xaafiluun laqad axal xawla ala aksarihim foom laa yuminuun إنا جعلنا في أناخهم أقلالا سيء إلى الأسقان فهم مقمعون بمجري طل إبليس خرن خريت خريت نبي دقتي كابا بيجار كونسل تقاي يب نئ diw ndek ci ñi may fexel eh diw ku nga ko ku nga ngeenaayowul jaase yaa ngi fett wala yaa ngi gobar wala yaa ngi xeej mu dem ba dand leen tibb ci suuf si ne leen ko wasaar ne saaratul wujoo ku suuf dal ba dar nga dee mu continue guddi ga sidi abibakri ñu ne mu ngi ko jëkkale ci xaari Iran ñu ne ko ci sa biir ak Iran alaaji Malik nag ne wa ñu ngay fexe ca biir màkk ca daaru nafwata lu arrêté Moustapha faat ba kanam wa yamkuru te dogal na bu yàgg laawu yàlla itmaaman li dulli mi seydil hujudi wa alimi su poson nañ ko jibar nañ ko sul ko yëbal nañ ko sànni ko ci teen tëru nañ ko te rasulullah teraangaam ak teddaam mës naa war guddi di ñibbi ànd ak xale bi dix-sept personnes daw jiitu ju ko taxoote dugg ci àll bi dem ba taasi gin tëru ko pour rey te ci ginnaawam la ñu àndoon jibril la ñëw ne ko yàlla ne na diggante taasi gin ak caajaay am na dix-sept dix-sept personnes ci soldats yi fa jiitu pour gate paan mu ne ana jibril ana ana ana subayru mu ne maa ngi aliyin mu ne maa ngi dalatu maa ngi na ngeen jaabal gaaw balaa noo agsi dax saay saay sosu ba ñu àggee daxaleen dugg ñoom ci àllu taati gin bi ñuy fatax fatax ba génn si waat Fatick dugg si biir groupe bi dafa am ku ne bi ne ko xam nga ñi la def lii mun ne ak seen turi ndey ak seen turi baay ñu ne ko signalé leen ñu rey ko mu ne kon xas lay doon dañ naan mu ngay rey ñu ko topp ñu ne xalaat nañu ñu def la beneen yoon nii mun ne yàlla sàgganul te waaw na jóge ci gawar jóge ci xare bi di gëmmentu gëléem gi tem ba ma ci ñaari suuruur ñaari dëgg ci déem bii sax droite bii sax gauche ñu màgg ba roofaloo ci kaw ne bii gëmmeentu ba ak ci yëwu ko waaye ba bopp gileem gi ne yoxoos la si déem gu ne daw un kilomètre sallallahu alayhi wa sallam jàll xam nga kooku ni ko ko fexeli da ngay torox rek du sotti jàpp nañu béy seen i ba nga daa jàpp na béy ku jigéen la xalaat yaxut la laaj kenn ci saaba yi wala yàppale na bi gën a bëgg mu ne ko yàpp bi mu ne fu mu gën a bëgg mu ne ko pàllanka mooy diggante mbagg ak përëb mu rëy benn béy fees ko poson ko roof ci poson ba mu fees ëppal poson ba fi ne bi gën a bëgg ñu nu poson ko mu bax mu posonaat ko mu yekk wis ci poson invité na bi jox ko ndox raxasu sarvet delloo bunte bi daanee bi dul rasool na loxo bi yom gàtt bi ne ko irfa yadayka ya rasulillah astation dañ ma posal amaarat أمان الناس أبيان باسم يا مودة بيانا فسيا والنبي رجيل ومدى مالي أمان أمان مالك بكرة كرمان أرم لكم مجان مجان مالك باوان فام وشنجار كمر الأنياوال تاكمنا عثمان الكريم المرتدى سلم المزائق من يرفعني سيدي أجي مالك تاكمنا عثمان الذي قد جاءنا نور الهدى من أحمد أجمالي سيدي أجي مالك موضوع لجيب المال

mu def nga def teyit la mu daan bañ jàppe la ci lool yow la mu def nga def teyit la mu daan bañ jàppe la ci lool man gan àggagul ci benn mbir teewul nangu leen jëfi yàlla nangukan àggagul ci berndeel ku teewul nangu leen jëf bi yàlla may maanukan àggagul ci berndeel ku teewul nangu leen jëf bi yàlla may xalifaay gor si yàlla fal yënguwul ngir jubbi baatin jaaja moom gordu ba faate salli rabbi sallu ala nabi ahmed xalifay gor si yàlla baal yëngul gi jubbi baatin jaaja moom gordu ba faate rafetal nay mbiram ci diina ba xeywal fasuleer jëm ca yàlla kon duunu faate salli rabbi fetal nay mbiram ci diine ba xëy war fa su dee jëm ca yàlla kon dunu fàtte danu war sant yàlla mbay dafa fawti we na woon gaar jaabur gi sëf na koyoo man tallira bi tallu ala nabi ahmad danu war sant yàlla mbay dafa fawti we waroon taal jaabur yi naa ko yoon li ko yàlla defal daa jaal na ku am xel dalu war roy ci ñi fi mbay si njaboot dan ko yàlla defal daa jaal na ku am xel dan war roy ci nit yi mbay si jamoote dafa duy ndaay fees ba tuuru mu jox leen fatu daa la kuy na def nanu féete mbay dafa duy ndaay fees ba tuuru mu jox leen kotu nana uye nana nana fete jikko yoon nene jaamu yoon ñépp a ko seede am cër ca yàlla ñépp a salli rabbi sallu ala nabi ahmed mbay jikko yoon nene jaamu yoon ñépp a ko seede am cër ca yàlla ñépp a ko yoonal jaamu yoon ñépp a ko seede dafa am cër ca yàlla ñépp a ko seede may di ko yoonal jaamu yoon ñépp a ko seede dafa am cër ca yàlla ñépp a ko seede jëf yaaral ji mu jëf ñépp a ko teewe nabi moo tëmbal xëy li mes doonu fàtte salli bi sallu ñépp a ko teewe na fi mbootam ba xëy nee na doonu fàtte sunu yoon nan ba altiñay bi suute sunu xalifa ba may altiñay bi suute sunu yoon nan ba altiñay bi suute sunu xalifa ba mbay altine besuute sunu yonnan ba altine besuute sunu xalifa ba mbay altine besuute sunu yonnan ba nag ay salafaatu sunu njaay te suur teem sun xalifa ba may altine bi suur teem loolu moo tax Cheikh Tidiane si ne keroog altineem jë ci boroomam ne day dem yóbbaale soppeem ya ne bi ñu ko defee ci bàmmeel bi midi cinq maa ngi